tout se passe comme prévu ah. li waroon demee rek la continuer di demee mais production yi moom defe naa ni du dépendre ci man pour ma bokk ci par force. léegi dama lay dama lay yóbbante parce que population bi journaliste yi animateur ñëpp dañ may laaj ce qui se kenn gisatuma dama bëgg buñ gisatee waa Soleil Levant ñu defal leen interview ñu laaj leen quest passe parce que man coup fii rek laay déglu. ah du tout am na benn moment sa peut-être sama niveau la woon parce que dama doon def renforcement de capacité théâtre sur scène formateur en théâtre conte marionnette def yu bare bëri ak état de Genève ak élus locaux suisse yi en quatre ans donc mais pare naa Covid mi ngi installé mais yàkkalu ma woon dara ndax bi ma ci nekk aussi joué naa ci wiiri wiiri mais dama bëgg rek yóbbante la buñ tasee teeg ñoom rek dañ leen laaj léegi lan moo tax Paco ñëwatul. loolu rek laa bëgg ñu laajal beneen comme ça euh, je pense pas man sama xalaat bu gàtt moom ma yóbbu peut-être ci ne xëy na production bi lañu dañ ma soxlawul ci produit boobu parce que des fois scénario dina taxawee noo xamante ni doo mun nga ci bañ a bokk donc doo ci bokk c'est pas forcément da nga war a Soleil Levant lu mu def rek saa neex war na ci bokk c'est pas forcément lu mu def rek euh, Modou Pouce Pouce war na ci bokk comme Paco aussi donc euh, loolu laa jàpp mais tamit day baax booy laaj benn côté di laaj muy tontu des fois bu ñu tasee ñoom aussi ñu laaj leen parce que franchement amuñu benn euh, problème man. Euh, waaw <laughs> maa ngi déggante ak ñoom. ah bañ a dégg aw ma ci intérêt kon ma ne fii dégguma leen. Mm-hmm. man sama kër yàllaa ko yor. waaw ñeenti at laa toog. Mm-hmm. di di di gëstu di jàng. Mm-hmm. Eh, li war sama kër ma ngi fay am. Mhm. donc aw ma intérêt toog fenn wax fa loo xam ne suba man maay sëgg. Mhm. mais juste rek dama bëgg ñoom bu ñu bu ñu tasee teeg ñoom. ñu ñu laajteel ma lool comme ni ñuy def chaque fois bu ñu dajee ak man. Mhm. di ma laaj qu'est-ce qui se qu'est-ce donc euh, mi ngi noonu dara xew. coow euh, coow amul. wala yëguma ko. Hmm. léegi nag xëy na ñoom bu loolu amee ñoom dinañ expliquer comme ça Sénégal gëm au moins man li may wax. Hmm. donc man je pense que ni ñoom ñoo ma mun a jàppale. Hmm. moo tax ma wax loolu. léegi ñoom bu ñu tasee teeg ñoom rek nañ ma ko leen laajal. lan moo tax Paco gisatuñ ko tout simplement. waaw euh, aujourd'hui entre temps euh, est-ce que participer nga peut-être yaa ngi wax ni depuis quatre ans peut-être bokkoo ci benn production Soleil Levant mais entre temps est production yoo xamante ni euh, bokkul ak euh, production wu euh, soleil levant par démarré woon nañ benn affaire mais après par manque de temps parce que sama jàng bi ma paree fare que ma pratiquer mm-hmm. dama doon pratiquer ak xale yi doon def parce que damay def développement personnel aussi mm-hmm. di formateur en leadership dama doon liggéey ak xale yi ama woon trop jot jot lundi mercredi vendredi yëpp dama doon liggéey ak petite enfance mm-hmm. moo tax des fois ñenn ñi dama leen doon wax ne dama doon wax tout le temps disponible ma ba finalement mujjul mujjul dem ñi maa ngi leen di xaarloo ñooñu mais bu ko weesoo ñoom rek la amaatul kenn ci artistes yi fi nekk di sama nawle nee nañu yee eh, yaay man maay ñoom ñoom ñooy man ku ma ci woo pour ma liggéey la la ci sa production mm-hmm. amul wala bu amee bu subaa na leen woo ngeen ñëw mu ne Paco woo naa ko ci telle production mu ne ma du ma ñëw. Mm-hmm. kenn woowu ma ci benn production parce que am na benn jour ma ciy waxanteeg benn kilifa xaw ma ndax am naa ndogal wax turam. Mm-hmm. parce que waxuma ko woon na ko dinaa ko wax. mu ne ma bugg naa la woo ci sama produit mais xaw ma sa contrat ak Soleil Levant ma ne ko ah man ne sama contrat ak Soleil Levant moom. yaakaar naa ne sama ay frère lañu sama ay sœur fa nekk. Mm-hmm. buñ ma soxlaa ci liggéey muy sama njariñ. war naa dem feneen loolu mooy sama objectif. Mhm. donc ku ma soxla ci liggéey rek boo ma woowee ma liggéey la ne maa ngi yaakaar maa ngi bokk Soleil Levant ba tey parce que jotewu ma ñoom dara ñoom it yaakaar naa jotewu ñoo man dara. Mhm. donc ku ma soxla liggéey rek boo ma woowee ma liggéey. Mhm. teewul nag bu ma Soleil soxla soxlaa tamit war naa fa mun a liggéey. Mm. d'accord. mais daal pour le moment nii tamit. maa ngi ci holding events gi daal xam naa ne. mais mais holding events <laughs> aussi. parce que bu ñuy gis boîte de production yi. Mhm. du ñu yem rek ci événementiel. non souvent dañuy am. produire ay séries ay cinéma euh, produire ay ay ciné ay séries. parce que est-ce que amu leen projet yi tamit euh, holding events. holding events parce que holding euh, je peux dire que label de production la et d'événementiel. d'accord. donc di fa nekk ci ay comédien bari nañu Alimar comédien la man comédien la ma ñu ko Badiane mi ngi fa bébé si mi ngi foofu Kombe euh, nu mu tuddati Meles donc ay comédien bari nañ fa ñun holding moom pratiquement ni mun naa ne comédien comédienne yi ñoo fa ëpp ku deful comédie it cent pour cent peut-être figuré nga wala participer nga ci benn théâtre donc ñi ngi xalaat suba ñu def production sunu projet yi la bokk ñu ngi xalaat suba aussi ñu def spectacle théâtre ci yenn dëkk yi ñu ngi xalaat liggéey ak comédiens yi mhm. ñoom tamit ñu sentir seen bopp ci holding parce que man bopp fu ma nekk ambassadeur laa fay porté wut pour théâtre mhm. parce que théâtre moo ma dundal théâtre moo ma tijjil bunt yi ma tijji yépp tey mhm. donc man je dois beaucoup te au théâtre donc mënu def leneen loo xam ne duma ci boole théâtre guise de remerciement parce que ñi bootu ci sama ginnaaw ak ñi gis par exemple ay théâtre kat envier leen ba dugg ci théâtre tey sax boobu ñu yaakaar ba dugg ci dañ ko fee war a fekk mm-hmm. donc loolu sama objectif la mm-hmm. lañu yaakaar daal ba dugg ci sunu métier bi bu ñëwee nañ ko fi fekk bu mm-hmm. kenn dugg yërëm ñu suba waaw xam nga ñun ak yéen dañu xaw a yem ku jàq amoo foo jëm ne bàyyi ma defi ji animation ku xaw a rafet tuuti ñu ne demal défilé ji wala demal animé demal télé wala sa rafetaay bi <laughs> demal da nga neex comme si que ni kat yi mooy loolu bu der yàqoo daal na aajo faju man lii laa gëm fu euh, ma mënti nekk daal na na njëgu bawal gi teel a génn tout a teew <laughs> ah, ah, aujourd'hui yaa ngi yaa ngi wax ci euh, euh, théâtre ba boo def appréciation peut-être sur l'état actuel du théâtre sénégalais yan impression nga ci am parce que d'aucuns disent que on tend vers le cinéma ci suñu ay production surtout yi nga xamante ni ñoom ñoo mujjee génn ak nouvelle maison de production yi fi nekk euh, mu mel ni théâtre bi dafa commencé sooxe d'une manière ou d'une autre fii ci réew man je pense pas bokkuma ak ñoom xalaat man je pense bien que de théâtre évolué na bu baax a baax. Mm-hmm. gis nga nag boo jëggaani jee tradition jàmbur loo ca am da ngay jël. Mm-hmm. ku xam théâtre à l'origine xam ni Sénégal moomu ko. Mm-hmm. donc théâtre bu tax ñuy wax théâtre ça se au théâtre donc téléfilm la ñuy wax parce que ñun moom ngeen ñu xamee donc bu ñuy wax ci téléfilm Sénégal nañ ko jël soixante ans ou soixante quinze ans ci ginnaaw lan la woon bi théâtre di am téléfilm di am série di am long métrage di am Sénégal waxuñu woon waxam mais fii té téléfilm bi toll parce que xam naa ne téléfilm ngay wax théâtre mm-hmm. donc fii téléfilm toll tey nii man je pense bien que ne avancé na à grands pas lan moo waral loolu Sénégal dañoo war a weesu fu wanee sunuy jafe-jafe sunu torox tànge ak sunu métit day tax ñi fi bëgg a ñëw. Mm-hmm. investir fi ñi fi bëgg ñëw vacances fi dañ koy ragal. maanaam yow tu es d'accord pour que le rêve su ma la ñu génne luxe bi fi ne ñu génne beauté bi nekk ci yéen ay jigéen ñu rafet ñoo fi am. ay xale yu rafet ñoo fi am. Mm-hmm. dina tax sama genre bi nga xamante ni mi ngi doon xool benn américaine wala benn brésilienne mu gën a def xelam ci takk mbokkam. Mm-hmm. jël sa waaso. noonu la mën a demee parce que man awma problème ci théâtre lii wax na lii waru ko woon wax diw def na nii waru ko woon def mhm. ndax xam nga lu tax mhm. bu ñuy jàngal théâtre dañ ñuy wax ni soit li ñu bëgg a génne dañ koy wax wala ñu wane ko boo amee partition bu ñaaw boo waraw génne mhm. mu leer na la ne ñaaw na jéggi na day wax ko garaawul benn yoon nga koy wax après ñu dégg ko ñu xam ne lii nga bëgg a wax boo ko génnee xayrun bu génnul noonu man je pense bien que ni théâtre fi mu téléfilm fi mu toll nii. war na ko weesu sax war na gën a dem ci kanam. mi ngi ci paa bi mi ngi dem rien à dire. Mm-hmm. man ñoom ñëpp laay seetaan. Mm-hmm. bu ma amee jot toog seetaan bu ma amul jot après ma kar ko ci internet bu ma seetaan et de passage gis nañ tamit kër gi fii niñ ciy jàppee. Mm-hmm. parce que da ngay toog bii jeex bee ñëw bii jeex bee ñëw waaye kër gi moom këru culture la këru. Euh, euh, théâtre kat yi la mhm. donc euh, j'en profite pour remercier leen ci sama baat ci turu artiste ndax sañ naa ko mhm. man maay chargé de commission bu Arcos Thiès mhm. donc sañ naa wax ci turu comédien yëpp donc ñi ngi leen di remercier waaw ah, mi jege ji rek la ñuy jooy parce que dañuy def pas mal de festival aussi et duñ leen ci gis duñ leen gis ci benn festival te Sen TV ak ni fi artistes yi nekkee war nañu bu ñuy festival ñu sentir leen ci ngeen ñëw ñëw ndax bugaan la ak ñun ñëwaa ñëw ba pare ñëw. waaw waaw. Ah. nee na ñëw ñëw. Mhm. Ah, waaw mais sponsoring la ngeen ñëw donc visibilité télé bi xam nga moom nëbbatuwul. Mhm. mun na gën a fës mhm. mais dina tax tey jii koo xam ne xalaatoon na ne Sen TV lii rek lay def. dina xam ni ah, artistes yi muy jàppale dëgg la ci moom. Mm. des fois xëy na disponibilité la problème de moyen mais am na ko mën a engagé.